sëriñ Abdul Hakim Mbacke sëriñ Abdul Hakim Mbacke mi ngi feeñ jamono ci atum 1938 ci dëkk boobu nag di Touba Mbul Kayel dëkk boobu nag di Touba Mbul nag la doomu Cheikh Mamadul Basir Mbacke bi feeñe jamono sëriñ Abdul Hakim Mbacke nag mi ngi feeñ jamono bisub samedi juróomi fan ci mois de février ci atum 1938 di doomu soxna Xadi Silla ak Cheikh Mamadul Basir Mbacke moom sëriñ Abdul Hakim Mbacke nag bi mu feeñee jamono ci atum 1938 waajuram Cheikh Mamadul Basir Mbacke rakkam ju mu bokkal sëriñ Touba Xaadim Rasoul nag la ko fayee di sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi moom sëriñ Abdoul Hakim Mbacke nag am na ñum bokkal soxna Xadi Silla ak kii di Cheikh Mamadou Basir Mbacke ñu mën caa ràññee jigéenam ba soxna Maymunatu Mbacke bintu soxna Xadi Silla bintu Cheikh Mamadou Basir Mbacke ak moom sëriñ Abdoul Hakim Mbacke ibnu soxna Xadi Silla ibnu Cheikh Mamadou Basir Mbacke soxna Maymunatu Mbacke moom mu bokkal soxna Xadi Silla ak Cheikh Mamadou Basir Mbacke bi mu matee dem kër sëriñ Basiru Jeng Guyaar moom sëriñ ma Yaasin Ummi Jeng nag lañ ko jébbaloon ba tax na am na ak njaboot ak kii di sëriñ Basiiru Jeng ñu mën cee ràññe sëriñ Abdou Lahad Jeng mën cee ràññe soxna Maam Faati Jeng soxna Ayda Jeng soxna Musli Jeng soxna Ummi Jeng ak itam nag sëriñ Basiiru Jeng faye woon Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke muy sëriñ Basiiru Jeng njaboot jéen nag la soxna may Maymunatu Mbàkke nag am ak sëriñ Basiiru Jeng ginnaaw bu sëriñ Basiiru Jeng génnee àdduna soxna Maymunatu Mbàkke nag lañ ko jébbal nag sëriñ Abdoulaye Jaxate moom sëriñ Hamsatu Jaxate mu am fokk ñuy wax sëriñ Moustapha Jaxate ak soxna Ndey Xadi Jaxate bi matee dal alxuraanul karim waajuram Cheikh Mamadul Basiir Bachir Mbacke ci dëkk bu ñuy wax Tawféex nag la ko yóbbu woon Tawféex nag digganteem ak Jurbel juróom-ñetti kilomètre la ku ñuy wax Serigne Mbaye ja nag la ko fa joxoon Serigne Mbaye Dia miiti mu nekkoon ne imaamu naafila ci jumaay njaareem ji ci loxoy Serigne Mbaye Dia moom nag la nekk nag ba mokkal alxuraanul karim ginnaaw Serigne Mbaye Dia nag lañ ko jébbal Serigne Habibu Mbacke imaam ci dëkk boobu nag di mbul kayal ci bi Serigne Habibu Mbacke nekkee nag ci loxoy Cheikh Mamadul Bachir Mbacke ginnaaw Serigne Habibu Mbacke imaam nag lañ ko jébbal Serigne Mouhamadan Koso ci dëkk bii nag di Koso Serigne Mouhamadan Koso nag doomu maam Cerno a Faati Mbàkke ndaamal daaru la ci ñett ñii nag la sëriñ Abdul Hakim Mbàkke jaar nag ci wàllum njàng nekk itam nag ku géeju nag ci wàllum njàng nag ak xam-xam mu del siwaat nag ci loxoy waajuram Cheikh Mamadul Basir Mbàkke Cheikh Mamadul Basir Mbàkke itam nag tarbiya ko yar ko xirtal ko itam nag ci yoonu maamam wii nag di sëriñ Tubaa Seexul Xadiim ba ni Cheikh Mamadul Basir Mbàkke génnee àdduna ci atum bi Cheikh Mamadul mu fab léppam Mbàkke di magam di Cheikh cheikh mamadul moustapha mbàkke moom cheikh mamadul basir mbàkke di ko xoole sax nu raw nam doon xoole nag cheikh mamadul basir mbàkke ndax kat ndono lool dong nag la leen fi cheikh mamadul basir mbàkke bàyyil muy ku mag ay rakkam topp ko moom sëriñ abdul hakim mbàkke nag jëfe na nag loolu ndigal toppoon na itim nag ci ginnaaw magam sëriñ moustapha mbàkke moom cheikh dul basir mbàkke tax na itim nag mbooleem ñum séquloon cheikh mamadul basir mbàkke ñëpp naw nañ ko naw googu ko magam cheikh mamadul moustapha mbàkke moom cheikh mamadul basir mbàkke nawoon sëriñ abdul hakim nekkoon na jëwriñu fulku bi daa taxaw itam nag fulku bi na ko waajuram cheikh mamadul basir mbàkke daa taxawoo ci diiru weeru koor gi mu wii nag topp ak magam cheikh mamadul di ko liggéeyal lu mu am jox ko yeneen magam yi mu séqal cheikh mamadul basir mbàkke itam nag mu def leen ni mu def nag sëriñ moustapha mbàkke basiru ba ni sëriñ moustapha mbàkke basiru nag génnee àdduna ci atum 2007 laata cheikh mamadul moustapha mbàkke moom sëriñ basiru nag di génn àdduna sëriñ abdul akim mbàkke itam nag taxawal na ay daara ci nekkinu sëriñ moustapha Moustapha Mbacke Bassirou ñu mën cee ràññee daara jëm taxawal ci atu 1973 ñu tuddee ko Njaay Njaay juróom-ñaari kilomètre nag moo dox nag ci digganteem ak dëkk bi nag di Passy ci Saloum mu wéy nag nekk nag ci dëkk boobu nag di Njaay Njaay ci atu 1973 di dundal mbooleem ndonal nag Seexul Xadim toppitim nag ci ginnaaw ay magam ba ci atum mu taxawal nag ñaareelu daaraam ci dëkk bu ñuy wax Maam Jaara Maam Jaara itim nag mi ci Saloum ci suuf soosu mu wéy itim nekk daaraam ci dëkk bu ñuy wax Touba Madina Touba Madina nag mi ngi ci wetu dëkk bi nag di Kaffrine taxawal na daara itam nag ci dëkk bu ñuy wax Jogo dëkk bii di Touba Nasru Cheikh Mamadul Basir Mbàkke mi nag moo ko fa féetale woon Nasru nag mi ngi ci wetu dëkkub Cheikh Mamadul Basir Mbàkke bii nag di tiipa juróomi kilomètre moo dox ci seen diggante Nasru itam nag bokk itam nag ci dëkk yi nga xam ne ni Sëriñ Abdul Hakim Mbàkke moo ko donn nag ci waajuram Cheikh Mamadul Basir Mbàkke ci dëkk yi nag la nekkoon nag di yar di jàng ak di jàngale di wéyal nag ndonal maamam la jàng ak jàngale melokaan woowu mu yore woon moom sëriñ Abdul Hakim Mbàkke boo delloo nag ci marché bii ko sëriñ Caaya ko fay defal mag ñuy wax nag ba ni sëriñ Abdul Hakim Mbàkke nag daa taxawoo taalibe yi ak nim leen daa yare doxalin wi nga xam ne ni sëriñ Abdul Hakim Mbàkke nag bëggoon na ko képp kuy yaakaar Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke nga di ko doxe jikko jooju sëriñ Abdul Hakim Mbàkke daa doxe ak melokaan woowu nag mu yore woon sëriñ Caaya ko fay nag mag ñu koy nettali nag ca marché ba ñu teewlu dox te bàyyi coow leeg pomi bàyyi war di wax gis ngeen ni waa ahlu minan ji di doxe ndigal li moo leen ko sosoon ñu koy doxe da leen ni woon nañu àndandoo doon benn te boole xol yépp mu nekk benn lépp lu waay yéene sa bopp yéene ko bépp jullit te ko la tooñ nga baal ko di julli waxtu yu juróom ci ak laab di jàng alxuraan itam ci ak laab di jàng it xasiida yi canam ware di ko durus boole kuréel fu ngeen fare kenn ku ne fexe ba fam ne ku ko gis rafetlu sa taalu bi ak sa pas-pas aw ñaq bañ a toog di jooy ndigal li nag yemul ci lu mi nan képp ku dib taalube ca nga bokkoon ku jébbuloo ci moom ku ne ndigal na la ndigal ci ab taalube nag aw sas la ku ko ci bàyyi làq ngërëmul sunu boroom ndax seen ngërëm mooy ngërëmul sunu borom ndax duñ gërëm kenn ku yellowul ngërëm mbaa bokk koy def du sëriñ Abdul Hakim këram gu ne def na fa daara ak jàkka umra ji na ay yoon yoon dem màkka ku dem këram ku nekk moo lay jiite julli juróom ndax u ci jot du wuute ndax sunu boroom dafa defoon mu nir lool sunu sag ba maamam ja di xaadimu rasul ku nekk gis nga alxuraan nim ci meloon sëñ bamba rek rek la ci xere woon jàng ko ak jàngale ko ci la dëkkoon ak ci sax mu lay teral ngir alxuraan moom rek laa gis daa daaw koy dénkaane ndax bëggutoon kenn ku koy caaxaane na maam ja daa def rek la ko daa def dencal ko boppam wut sikeem di ko ca def saa yoo jox alxuraan alxuraan day daal di muuñ ba mel ni sax day reetaan ñaari loxoom yu tedd ya la koy nangoo te yokk bu dër nga xam ni kii moo ko jagoo guddi gu ne durus ko lay fanaane xay ci xasiida yi te koy santaane yendoo yi tey taalibe yi weye ndigal te boole ko di déglu fu mu toll ndigal kooram ga nag ku xam sëriñ Abdul Hakim xam ne bu doon am xarit mooy xaritam weer la ko daa teeroo gunge ko weer ak weeru koor seen mboole ñoom di ñetti weer te du ko daa booleeg lu ñëw mu joxe ko julliti yàlla yi ko xëy gi daane fi yendoo jàng fulkul masxoon ak alxuraan ba kër muy jot takkusaan bu sëlmalee dugg ca mbaarum fulku ma mbokk taalibe yi bokk déglu njàng ma wax ji ma wax nag ci sëriñ Abdul Hakim du lu ma fortu lu ma dund la ak moom ku sikki sàkkal yi nga laaj ko Mbàkke Jóob nit la ko baax mësuta def lu jar tuub moo daa yore sëriñ bi jaay firaam ja ñu ànd ñoom ñaar rekk ciy saa waaja ngoram nga ak maandoom nga ak dal ga mu dal ak sell gaa walal sëriñ bi ba ko xel ndax sëñ bi moom ku nekk xam nga fam ne woon jeexiti Seex Bàmba yi ci la bokkoon magam sëriñ Moustapha Mbacke Bassirou di ko xoole Cheikh Mamadou Bassir Mbacke ba tax na itim nag kii di sëriñ Moustapha Mbacke Bassirou na ko nawoon rakam ji la nag di sëriñ Abdoul Hakim Mbacke sëriñ Moustapha Mbacke Bassirou itim nag na ko jëwriñ lu sëriñ Moustapha Mbacke Bassirou nag daa wax di ko jëmale nag ci njabootuk sëriñ Bassirou Mbacke gi sëriñ Abdoul Hakim Mbacke itim nag la ko daa wax waxloo lu sëriñ Moustapha Mbacke Bassirou daa def loo njabootu Cheikh Mamadou Bassir Mbacke gi sëriñ Abdoul Hakim Mbacke itim nag la daa teg ca bopp ba ngir mu nekk nag jëwriñ ji ci daaray sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke yi ñu atum 2002 sëriñ Touba Cheikh Saalihu Mbàkke joxoon na njabootuk Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke ndigal na ngir ñu ruujal ko tooli xel koom yooyu ginnaaw bu ko njabootuk sëriñ Basiiru Mbàkke ruujalee ba noppi sëriñ Moustapha Mbàkke Basiiru sëriñ Abdul Hakim Mbàkke nag la joxoon kàddu di ko wax ne nag santal ma nag mbooleem taalibey Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke yi sëriñ Abdul Hakim Mbàkke itam nag wéeloon na ndigalul magam jooju nag di sëriñ Moustapha Mbàkke Basiiru di sant nag taalibe yi ci farlu googu ñu farlu ci liggéeyal sëriñ Touba Seexul Xaddiim ba am ci nag ngërëm cëram wala nag ñu defee ko noo xam ne nii nag sedd na xolub nag sëriñ Moustapha Mbacke Bassirou te noonu mu seddee na xolub sëriñ Moustapha Mbacke Bassirou ni la seddee na xolub sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke mbooleem nag ñu sëriñ Moustapha Mbacke Bassirou itam séqal sëriñ Bassirou Mbacke seen xol itam nag noonu la seddee kàddu yi muy yëkkati nag magam sëriñ Moustapha Mbacke Bassirou nag moo ko waxloo ngir mu sant nag taalibey sëriñ Bassirou yi ci liggéey bii nag ñu doon liggéeyal sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke ci suuf si nag di xel koom ci ab ruuja salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki taalibe yi ñu ngi leen jottali nuyoob sëriñ mustafa ak ngërëmam ak cantam ci yéen sëriñ bi nuyu na leen lu bari mu ngi leen di jaajëfalit ci coono yi te di leen sant di leen gërëm yaakaar ji ñu yaakaar ci moom ci mën a liggéey tool bi buñ ko dee yaakaar mbaggi boppam ya taxul yéen ñii ko sëñ Tuubaa booleel ci dara yi Seex Basiru ngeen ànd ak moom moo tax ñu di ko yaakaar di ko liggéeyloo yaakaar jooju dara tasu ci na ko yaakaare woon jàppee ko noonu gisee na ko gisee ko nu kaawe ci ni ko jëfee ba tax na foog ngërëm di àgg diggante moom àgg na yëgal nañ ko Pastef yi ngeen fi nekkee ndax nun ñi leen fi ñu ñu leen boole nu leen fi seere xam nañ ne Pastef bi ngeen fi am ci sëriñ bi mëni su ko misaal kenn ku dul ku teew fii gis ni ngeen di def liggéey ngeen fi liggéey woo xam ne ku ne xam na ne Pastef ak jom moo koy def waaye du ceegee ne kàttan ak ku cawarte rek déedéet foofu moom dafay am fu mën a yem yàlla dimbale ne leen ko ngeen am Pastef am jom ba niñ ko bëggee woon ni ko sëriñ bi bëggee woon liggéey ngeen ko ne kon ak yéen yàlla na leen sëriñ bi fekk seen bëgg ca la dagan ci yéen mu defal leen ci li bëgg ba defal leen ci lu kawe seen njor na nga xam ne mboolem jëwriñ ju fi nekk ak seex bu fi nekk dara ump ci leeral ko ñu ñëw ñëpp lim googee nag xëy na dana ko def ci kaw bu ngeen delloo ngeen koy mën a dégg ci rajo bi mënu koo lim ci jataay bi ndax jataay bi dafa yomb yàgg te dafa yomb metti man lañ boole ma seet leen de mënuma xam lenn loo xam ne manqué na ci yéen ci xeeti Pastef xeeti jom xeeti nangoo liggéeyal Sëñ Tuubaa mboolem ci lu nu ko mën a gisee rek di gisee na noonu ko ngeen defee ko noonu saa bu nu dikkee deen wër mënunoo wax ay góor rek sax mënuñu ndax seenu doxeen rek ko waral yàlla leen suñ tubaa jàppale boppam ba ngeen man ko te def ko tam nangu leen ko tamit lu yàgg lu sax tamit lu mu leen ko fi yàqu ñëpp adduna ak alaax rek da nga jariñ tey da nga jariñu ëllëg te liggéey war a defe ba nga xam la nga war a am lépp tey ëllëg rafet ci njot sant yàlla xam ne suñu borom dana ko wërsëgale ci coobareem kon nag jërë ngeen jëf yan yàlla dolli wér geeg man gi doo leen defal yërmande ak ndimbal doo leen defal sutura lépp loo xam ne yitte la ju ko waaye amoon indaale ko ci tool bii bu dee lu dagan ci moom yàlla na ko sunu moom defal ci dara ji liggéey bi na mu ko bëggee kenn ku fi dikk ëllëg daal na fi dikkee jeneen ëllëg waaye yitte jë fa andi woon moom yàlla na ko suñu tool borom ba faj ci dara ji sëñ Tuubaa kàddu yooyu nag moo nekkoon Xelkom mi mu wéy jël léppam nag jébbal magam sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko xoole nag nam doon xoole magam ja sëriñ Moustapha Mbàkke Basiiru taalibe googu sëriñ Abdul Hakim Mbàkke doon dundee ci magam sëriñ Moustapha Mbàkke Basiiru ak magam sëriñ Muntaxa Mbàkke ak nag fonk gum fonkoon ay rakki boppam tax na itim nag sëriñ Caayaa ko fay soo delloo nag ci marché bi nga xam ne ni jagleel na ko sëriñ Abdul Hakim Mbàkke mag ñuy wax nag taalibe ak sëriñ Abdul Hakim Mbàkke ak xel koom jooju nag su ko sëriñ Saaliwu Mbàkke masaa jox nag magam ji sëriñ Moustapha Mbàkke Basiiru farlu goo xam ne na ko ca doxee ak soññ nag gum daa soññ taalibe yi nag ci xel koom lu yaatoo yaatoo yaatu ci taalibeeg sëriñ Abdul Hakim Mbàkke la ñu sëriñ caayaa nag di netti li ci marché bi ñu teewlu ko saa yu na jot ndigalul xel koom nga xam ne Cheikh Abdul Hakim moo jëre yem day dal dem ca tool ya wër ko ba mu daj ngir bëgg xam liggéey ba lañ ca war a daj bu dellusee lay door a tàmbalee waaj sant njaboot ga ñëpp maase daal di waaj du waxate kenn lu dul ci xel koom kenn dootu wax ci wax ju dul jot xel koom fan yooyu muy waaj lépp luñ ko fa andil buy dem da def ko bu yóbbal saa yu masaana dem ca kër mbokkam ma lay wàcc mook waa kër ga ak mbooloo ma saa yu xëyee yeete ñu daal di julli atoom taxaw mu génn leer gay jolli rakkam ja it génn ñu daal di jiitle mbooloo ma topp ca jigéen ñe sar xole ku yéex a xëy ca tool ya fa nga koy fekk muy soññuloo murid ya bàyyi mor sekk bu ñu demee dal yépp dana leen wër saafonte ak ñoom door a dem ca war wa teer itey sëriñ Basiiru Jaa nekk ca moom Cheikh Abdou Mbacke sunu waa ji kenn du moom ca tool ya lay julli baar ak takkusaan mook Seydi Fallu laaj ko Abdu Rahmaan mooy wàcce der ba ca otom ba lale xam ñu julli buñ noppee mu laliwaat deram dirub liggéey ba lu mu yàgg-yàgg nii rekk lay dox ba bis muy àgg ku soxla loo dimbali ko mu jox la ku ëpp soo ko waxee mu faj la ci barke maamam xaadimu rasuulu alxaaji seex abdu maa ko wóolu xam ngeen ne xel koom ji dadaa dox bu jëkk ne ca kanam waar wa ca ñey di ji ëkk amoon na ay jàmbaar ci ak njabootam ku nekk mën naa wax turam mbooloo la woon moo xam ni foo leen fekk ña nga fa waar bokk la mbaa mu yàgg seen xar kanam ya dañ ko daa muur ba mu daj ngir bañ ko leen ñeewante tii seen yu daj saa yun masaana wër ba sëñ bi seen leen xaw mu àgg ba fa ñoom gërëm leen feeñal fa ñoom xolam bu sedd soñu leen jox leen fa miskit ak nguru ñaanal leen am na ci nag ñoo xam ni xaw ma biral seen tur fii ndax ñeme guñ ñeme ndigal doom lañ yu jaay seenu njureel di taalube te xeme muñ leen lu dul ak taalube kee nga ca àll ba du dem ci ay taax ke nga ca taax yàgg àll ba di def lu baax sëriñ seex mu seex Abdul Atif yaaram ba si ak sëriñ Tadaam Daarul Minan murid ba jawriñ lanu yu déggaloon sëriñ bi ngir xam sëriñ bi mu teg liggéey bi sëriñ bi moom ndigal lu ñu ko mos a jox jëfee na ko te mosu caa boole di wax xel koom ji am na bis ñu ne ci waar wi ay ndaw làmp faal ni jaas ci waar wi tàllal ko seeni micro naa ko sëñ bi dañoo bëggoon say kàddu fii ci rajo bi wax ñu liggéey beeg tolluwaayu tool yi suñu ñibbee jotul li lii murid yi ndax rajo bi moo di rajob sëriñ bi kon sab rajo ndax yaay sëtub sëriñ bi sëñ bi ni leen man dañu may liggéeyloo liggéey du ànd ak wax bu leen ma waxloo ki fi genn kàddu moo fi am ma ak boroom su wax jotee moom mooy wax ak ay taalubeem Cheikh Moustapha Basiru mooy ki war a wax dem leen ci moom su ngeen bëggee yóbbuy wax lii rekk doy na ci xamal leen fam ne woon ci digga mag ay kilifa am yamu nekkaloon lii moo taxoon Serigne Moustapha fonkoon ko doy doyloo ko lool woolu ko lool maal ko ba woon ko xel lool donte moo di kilifaam ndax jub ga ak pas-pas bu rëy ba ne ca moom ba mu ñibbee fekk Serigne Basiru mu des fi mook Cheikh Muntaxa Basiru fekk na yàlla sun boroom defoon ci ñoom ñu ànd bokk ak bëgg ca seen boroom Cheikh Abdou walbatiku yee salaat ci moom lam gëm mu dik taalibe ngir sunu borom topp googu mu toppoon nag ci ginnaaw magam sëriñ Muntaxa Mbàkke tax na itam nag sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru itam nag joxoon na ko sëriñ Abdul Hakim Mbàkke magam nag sëriñ Muntaxa Mbàkke itam nag delloo na ko rakkam ji nag di sëriñ Abdul Hakim Mbàkke mu wéy nag nekk nag jëwriñu fulk bi di taxawu magam ji nag sëriñ Muntaxa Mbàkke itam nag ci njabootuk Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke gi ba ni sëriñ Muntaxa Mbàkke na tabaxee jumaay daaru minam ji bi ñuy immigré jumaay daaru minam ji bisub ajjuma juróomi fan ci mois de mars ci atum 2010 sëriñ Muntaxa Mbàkke ibnu cheikh Mamadul Basiir Mbàkke ginnaaw bu mu seetee ma Mamadul Lamin Baara Mbàkke jox ko nag addu yu takkoo takkoo takku boole ko itim nag di ko wax ne jumaay daaru minam ji itim nag dama koo bëgg a waaye nag sama rakk nag sëriñ Abdul Hakim Mbàkke nag laa bëgg def imam bi cheikh Mamadul Lamin Baara Mbàkke itim nag jox ko ndigalul nag ñu intégré jumaa ji ajjuma jiñ ci njëkk julli ginnaaw bu jumaa ji noppee moo dëppoog nag bisub ajjuma juróomi fan ci weeru mars ci atum 2010 ajjuma jooji itim sëriñ Abdul Hakim Mbàkke itim nag moo ko jiitee xutba bi itim nag sëriñ Abdul Hakim Mbàkke moo ko def bisub keroog ñu teewlu ko laataa ñuy ñëw nag ci julli gi alhamdulillahi alladi an'ama alayna bi azhari sayyidil bashar وعكف على منزله آمنة الطير وهلل وكبر وانشق إيوال الكسرى ومال وانكسر وسبحان من أرسله كافة للناس وبشر وأنذر أحمده حمد من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا nag moom moo nekkoon xutbab arab bi ginnaaw xutbab bi liqaam nañ nag ngir waa jël julli gi ginnaaw bu ñu liqaamee ba noppi nag sëriñ Abdul Hakim Mbàkke nag moo nekkoon nag ci bopp sàppe bi nekk itam nag imaamu daarul minan ñu teewlu julli giñ ci njëkk a julli te sëriñ Abdul Hakim Mbàkke nag nekk imaam bi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 walladi axraja almar'a fa ja'alahu ghusaan axraja sunu kutbatin sayda ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra ma yaxsha wa man yasluki al-isra'a fa dhakkir in nafa'ati dhikra fa yadhakkaru man yaxsha yatajannabuha al-ashqa alladi yasla naara al-kubra thumma la yamuutu fiha wa la yaxya qad aflaha man tazakkara wa dhakkara isma rabbihi fa salla bal tu'thiruuna al-hayaata ad-dunya wal-aaxiratu hayrun wa abqaa inna haadha la fi as-suhufi al-uulaa suhufi Ibraahiima wa Muusaa Allahu akbar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 loolu mooy jullik ajjuma gi njëkk a julli nag ci jumaay daaru minnam ji te sëriñ Abdul Hakim Mbàkke moom Cheikh Mamadul Basir Mbàkke jiite ko ci ndigalul magam sëriñ Muntaqa Mbàkke sëriñ Abdul Hakim Mbàkke nag magam sëriñ Muntaqa Mbàkke nag def ko imaamu daaru minnan mu nekk itam imaamu daaru minnam ci li ko dalee ajjuma juróomi fan ci weeru mars ci atum 2010 ba ci juróomi fan ci mois de juillet ci atum 2013 diirum nag li mu nekk imaamu jumaay daar minnam jooju mi ngi toll nag téeméeri ajjuma ak juróom fukk ak juróom ñaari àjjuma rek la ci sëriñ Abdul Akim Mbàkke nag jiite ci diirub nag li mu nekk imaam doomam sëriñ Moodu Abdoulaye Mbàkke ibnu sëriñ Moustapha Mbàkke Basiiru la joxoon nag mu nekk imaam ginnaaw imaamu daaru minnam jooju bi jumaay tiib ji pare magam itam sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru itam moom la defoon imaam ba lii di màkkatal mukarama itam nag dem na ko ci atum dem na umra ji itam nag ay yooni yooni yoon itam nag ci dëkk boobu nag di màkkatal na fa jëwriñu fulku Bachir Mbacke gi ci jamonoy sëriñ Moustapha Mbacke Bachiru ba ci jamonoy sëriñ Muntaqa Mbacke ba tey ci jëfi sëriñ Abdul Hakim Mbacke njaareem googu itam nag nekkoon na imaamu julli korité ci atum 2008 woon fa magam ja rek sëriñ Muntaqa Mbacke ibnu Cheikh Mamadul Bachir Mbacke ci ndigal nag lu magam amoon ci xalifa général des mourides bi fi nekkoon di El Hadji Baara Mbacke mu wéy nekk nag ci ginnaaw ay magam ak nag ay rakam ak mbooleem njabootug sëriñ Bachiru Mbacke gi di dundal doomu Cheikh Mamadul Basir Mbàkke bi tax na itam nag ñu baree baree baree bari ci yoonu murit nag naw ko ñu baree bari itam nag ci yoonu murit itam nag tudde nañ ko doom ñu man cee ràññee waajuram Cheikh Murtada Mbàkke ibnu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul tudde na ko doom waajuram Sëriñ Abdou Latif Mbàkke moom Maam Moor Jaara tudde na ko doom magam Sëriñ Siidi Mbàkke moom Sëriñ Abdou Lahad Mbàkke tudde na ko doom doomam Sëriñ Moustapha Mbàkke Abdou Aziz Baara tudde na ko doom Sëriñ Busoobe Mbàkke bu ko doom Sëriñ na doomam jum faye woon Sëriñ Abdou Mbàkke bu sëriñ Masamba Mbàkke jébbaloon ko sëriñ Abdul Hakim Mbàkke sëriñ Abdu Xabir Mbàkke itam tuddewu ko doom fab na doom ju mu faye woon Cheikh Mamadul Basir sëriñ Abdul Hakim Mbàkke ba tey ci turandooy sëriñ Abdul Hakim Mbàkke yi mbooleem nag ñim séqal Cheikh Mamadul Basir Mbàkke ñépp tudde nañ ko doom waajuram sëriñ Tuubaa Cheikh Abdu Xaadir Mbàkke faboon na doom ju ñuy wax soxna Maam Busa Mbàkke jébbaloon ko sëriñ Abdul Hakim Mbàkke ngir mu dëkkoo ko waajuram Cheikh Murtada Mbàkke mu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul faboon na doom ju ñuy wax soxna Maymunatu Abdoul Hakim Mbacke itam ngir mu dëkkoo ko sëriñ Abdoul Hakim Mbacke nag mu ngi génn àdduna nag ci feebar bu ko tëral bisub ajjuma ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru Chaxbaan ci atum 1434 ci gàddaay gi ajjuma ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru Chaxbaan ci atum 1434 ci gàddaay gi dëppoo muy vendredi 5 juillet ci atum 2013 vendredi 5 juillet 2013 ci kër gim am nag ci Touba Daarul Minan magam sëriñ Cheikh Sidul Mokhtar Mbacke xalifa général de Mourides moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam nag ci wetu waajuróom wa Cheikh Mamadou Basiir Mbàkke soo delloo nag ci marché bii ko sëriñ caayaa ko fay defal mag ñuy wax nag lu bare bare bare bari nag ci doxaliinu sëriñ Abdul Hakim Mbàkke ak melokaanu sëriñ Abdul Hakim Mbàkke ak doxaliin nag wu sëriñ Abdul Hakim Mbàkke nag daa doxalee ci mbooleem taalibey Cheikh Mamadul Basiir yi népp noo xam ne nii daal ab sëriñ dana ni mel doomu Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke bii daal mel na ko ñu teewlu itam nag lenn itam nag ci marché bu ko sëriñ caayaa ko fay defal sëriñ caayaa ko fay mii nag taalibépp sëriñ Fàllu Mbàkke la moom Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke sëriñ la woon boo xam ni delloo nañ njukkal baayam ba ak maamam ja xaadimu rasul sëriñ la woon boo xam ni foo ko fekk xam nib sëriñ la ndax ca la nga koy fekk sëriñ la woon bu li sëriñ bi am doyoon mosu ko fee bàyyi di wut faneen la woon bu xam li Seex Bàmba bëggoon mu ne ca sax ca dakk geesuwul woon sëriñ la woon bu fonk lool ay taalubeem ngir xam ni moo dox seen digganteeg seen boroom sëriñ la woon bu teggi taalubeem ci yoon wi mu teg woon te woo moo di ngën ji yoon sëriñ la woon bu jub te bëgg nit ku jub mosu tafar ku dëng laaj ko Mbàkke Jóob sëriñ la aadama yi ngir sunu boroom sëriñ la woon bu bari yërmande ci nit looloo waral këram ga daawul ñàkki nit sëriñ la woon boo xam ne daawul dajale te daawul dégg soxla di ko jëllale sëriñ la woon bu bari yitte ak njariñ ku mas a jaxasool ku ne moo lay jariñ sëriñ la woon bu xay te bëgg nit ku xay moo tax këram njaboot ga ñëpp a ànd xay xay gaa waral daawul sul mbubb mu gudd sell ga moo leen xamaloon lam daa dund yére yu weex ëpp ca moom lam daa sol léeg-léeg mu daa la dëkke woon ku dal la woon amul lu mu yàkkamti ci jëfam ak waxam te ñàkkul yitte sanc na ay dëkk yu bari ci réew mi ngir jaamu yàlla ak liggéeyal réew mi sancam bu mujj bi di Tuuba Madina ca la nu tàggoo xam ni mbir ya sotti na tàggoo ba mooy ni taalibe yi mel ci moom ci bëgg guñ ko bëgg ngir sunu boroom murit bu nekk la fasanteel kóllëre te yàlla moonu sàmm la woon kóllëre mu xam ni kon gannaaw dogal ba jub si na ba mi ngi waaj ngir bëgg ñibbi aljana mu dem ca tool ya woo murit ya ab liggéey ba ñu jëflante ak ba yépp wuy si woon wooteem ba ak ni toogaay bii nu toog dootul xam wax jam na mboolem xol yi ndax daa bawul dara diggam ak donga yi gannaaw cantam gure yi gam sant donga yi soññ na leen ñu daggewaat pas-pas yi fonk bu baax ndigali sunu boroom yi te di ko sellal moytu it tereem yi fonk liggéey te di ko sellal it bu baax te moytu jëfineen ak taw rekk ni faax lii rekk moo dig tawlubee na ci sax te rafetal seen njortu muslu ciy wax lii la wax keroog ba dal nuy ñaanal ndekete mooy tàggoo ba noo ngi koy ñaanal yàlla na yàlla yokki leeram fa mu jëm ci barke xaadimu rasuulu maamam yàlla na ko seex basiiru mbake teeru ak ñamu bokkaloon sëriñ basiiru seex mustapha ak seex moodu abdullahi seex xastufaal muusa kalaamullahi ak soxna faati kinne ak soxna daba soxna busoog xastu mu ndaw yaaram ba xam naa ca mag ña seex basiiru nekkaloon ñooñ faw dañ ko teru ndax fam leen tegoon ku mel ni bàyyi sëñ jeng wa bay mbay gumbali bàyyi jibitaal faw ñu jóg sara xolle ndax ñoom sëriñ xab da doon seen péete ñu jox ko seen njaboot mu leen di teete ci ak ndawam lañ jaxasoo woon ak moom day lool ko lool ngir sëñ bi ak sunu boroom sëñ bi joxoon na leen lu bari ci boppam ñu koy sagoo Seex Abdou moo di yaaram yal na la yàlla yokki leeram fa mu ne taas ñu ci barkeem da saxal ma fi ma ne maa ngi koy siyaar Seex Muntaxa murid ba yal fi yàgg lool ci barke Bamba yal na ko yàlla fay xolam te may ko fa nu gudd ak wér jàmmal ko rakama woon dib taalu béyam bu nangu lim ñaan ci moom ko yàlla nangu maa ngi koy siyaar itam saa waa ji magama woon dib xaritam dib sëriñam bëggoon ko lool def ko ni jëmmi boppam sëriñ Isaaxa Mbàkke maa ngi ko koy siyaar te di ko ñaanal fa fanu gudd ak wér sëriñ bi it ba woon na xel ci moom bu baax billahi Cheikh Abdul Hakim Mbàkke baax maa ngi koy siyaar itam njabootug Cheikh Basir gii fi ne tey te di jigéen yàlla nanu wér di ko siyaar itam njabootam gii fi ne yal na leen yàlla saxal ci lii ñu ne li jiitu muy dem ñépp xam lañ war a xam ci diñu ne jeeg ponkam yi gëm lañ war a gëm jàngal na ne xamante ne ñi ciy gone ñi ngi ci daaree jàng yàlla na seenum jàng lépp àgg ñi ciy jigéen ku ci ne fam la bàyyi woon yaa nga fa toog di wéy ca la digaloon yàlla na yàlla dolli ndimbalam ci ñoom bañ àggale yéene sëriñ Abdul Hakim sëriñ Abdul Hakim Mbàkke nag ay xalifaam nii la tëddee sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Abdul Hakim Mbàkke di kam fayam maamam ja sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moo ko wuutu nag ci atum 2013 ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñ boroom guddal aw fanam te wéral ay cëram bi ak Mbàkke moo xam muy góor ak jigéen sëriñ Abdul Hakim Mbàkke nak amul nag bis bu buñ koy fàttaliku ci ñu tudde ak màggal waaye nag ñaari bis yi daaru min na am saa bu dikkee itim nag danañ ko ci fàttaliku muy màggalu maamam ja soxna jaaratullaahi ca poroxaan ak lii di weeru koor gi rawatina fulk bi ci njaareem ñuy ñaan ci doomu cheikh mamadul basir ba kam faye woon rakkam ji sëñ Abdullahi Mbàkke boroom dër bi yàlla nañ ko suñ boroom fayal te yokk ay leeram nag te taas ñu ci barkeem lii di jafe-jafe réew